donc pour euh, disposer de cette euh, ambulance. Et, euh, et, je me réjouis et je, je c'est avec euh, une croyance que cette nouvelle me trouve, la triste nouvelle du décès à l'instant de mon père, me trouve dans, en, en, en ces lieux pour faire ces actions-là. c'est pour cela que j'ai tenu euh, quand je l'ai su à 5 minutes d'ici de venir continuer le chemin que mon père m'a ma ma ma euh, Baba Sow conseil spécial de DG Doudou Ka donc euh, li xew ñun ñëpp ko bokk yëgandoor action sociale bu mu doon def euh, ci continuité liggéeyu ak instruction liggéeyu président de la République à cinq minutes de son arrivée pour remise de ses ambulances ci lañ ko annoncé génnu àddina papam donc loolu nag yi ay action la yoo xam ne dafay topp rek tànku ki nga xam ne mooy kilifaam di président de la république ci jàppale lépp luy gox-goxaan parce que loolu dafa bokk ci seen programme bi ñuy taxawal yoonu yokkute président bi muy yottu réew mi mooy fépp fu gox nekk ci biir réew mi danga war a sentir sa bopp comme kuy dundu biir dakaar kon action yooyu ci la DG nekk moo waral kon lii tey ak ay xaritom nag yu ko jege kii di ndooy Bane kii di Abdou Ndiaye Macky ak euh, commune Siwal